mbokki Sénégal mbokki réew mi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 bokk na ci mbër yi nga xam te ne buñ jógee géejawaay jóg bokk na ci mbër yi nga xam te ne buñ jógee euh, làmb xam ne tey euh, bés bu mag am na mu war daje ki nga xam te mooy Malick Ndiaye 37 Fou bu Siteu nuyu naa la. waaw fay nañ la Ousseyn ziar naa la bu baax di bëggee waa géejawaay bu baax ak fi nga ma fekk nii masa bees di bëggee dawalkatu seret yi bu baax a baax waaw maa ngi bëggee waa géejawaay bu baax bëggee waa diaspora bi tamit bu baax a baax mhm. noo ko nga naka ngay dundee deuxième vague bi ak làmb fi mu toll ngeen waroon ngeen nga nga waroon bëre sax laay wax ñu dem ba moment bi après corona deuxième vague bi ñëw noo koy dundee. waaw ni ñu koy dundee muy comme nu ko mbër yi di fayeeku million di dundee rek ndax boo xoolee fan yi rek ñoom bala gay 2 génn ak ñoom Modou Lo def geste bu rafet ku si mel ne xam nga tafaa Tine Boy ñaa gis nga seen plateau bi passé ak Eumeu Sène gis nga ni ñuy dooleele làmb di di waxal mbër yi waaw maanaam affaire metti caa dafa metti xam nga di boobu léegi nii xam nga.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 xam nga woo sponsor ku si mel ne Aziz Ndiaye gis nga bërki déew ñu ngi koy invité 2S muy wax ba ba ne moom pare na sax moom pour ñëw xam nga dooleel làmb xam nga ku si mel woon mooy lool entreprise bi mu yor ku si mel diwlin Sodor xam nga moom pare na pour dugal loxoom ci làmb pour jàppale jeunes jàppale mbëri dafa sax moom lu mu bon bon moom nekkoon na promoteur waaw Aziz Ndiaye ñu ngi ko si sant bu baax di ko wax ne mbër yëpp kontaan nañ ci moom dafa sax moom dafa jóg pour yëkkati waat làmb ko waa ànd nga ànd nga gannaaw bi nga waxee loolu ànd nga ci ñu boole Fass ak Dakar. waaw loolu ànd naa si loolu sax su rafet la tey day bokk tamit si luy yëkkatiwaat làmb. waaw ndax boo xoolee écurie Ndakaaru ay ndaanaan ñoo fa nekk écurie Fass kon loolu ñu leen booleel bu ñu leen booloo waaw day bokk si luy gën a xam nga tax yenn mbër yi doon bañ a bëre yëpp bëre waaw maanaam loolu daal dina bokk si dina am si lu mu géelu bare bare bare si làmb si luy yëkkati làmb waaw waaw di bëggee 100 pour cent géejawaay bi ñëpp dina wax ne yàlla na leen yàlla defal jàmm xam nga fi fi ngeen teg seen bët ci 100 pour 100 bi xam nga waaw yàlla eggal lépp di nuyu ambulance bu baax moom nit ku baax la. waaw di nuyu tamit Baara Gueye ñi nga xam te ne woon nañ ma xam nga ne ma mbër baal affaire yi xam nga di bëgg tamit waa diaspora bi gars yi ciy jàpp xam nga waa Géeja waaye Alaaji Naar xam nga Aziz Ndiaye sam patron maa ngi koy bëggee bu baax ak Mourtala surtout Mourtala Mourtala nee na mbër baal lépp yow maa la bëggal sam bopp xam nga wax ji nii du tax ma meral la du ma bàyyi la xam nga di jékkil xam nga bu buñ ma bàyyi woon xam nga ak buusita coow du am mais xam nga rek gars yi ñooy gën di wax barki yàlla xam nga doo xam mais yàlla na jàmm yàgg barki arxuraanu ko kontaan naa ci yow kontaan nañ trop gis ngeen ni lay demee fii lay leeree si Wassare làmb coow la woon showbiz la ah comme ni ñu ko defee diggante seek si di Diop moom tamit gannaaw làmb dafa fay nit ñi bëgg koo fàtte mu andi coow coowu làmb la euh, waaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax